wa xam nga man dama di nit ko xamni dafa am fuma bok muy troupe bu ñuy wax troupe soleil levant te man moomuma troupe bi euh, malgré je suis le directeur artistique mais du ni du ni may dogal dogal yi dogal yi fay jóge ci consentement bu ñu bu ñu ñëpp xamé woon comédie xamé ñu comédie xamé ñu comédie xamé ni comédie ba euh, ben moment ñu ni dañuy dugg ci drame def wane benen facette duma mën ni déedéet damay lu ma mën ni tamit damay démarqué wu wut beneen troupe wala damay démarqué wu def leneen ou quelque chose comme ça damay damay topp rek ci ñoom li ñu li ñu li ñu li ñu li ñu foog ni moo gën ci li ñuy def loolu nag taxul ni dama bàyyi comédie taxul ni mënatuma ko ba tey caay-caay ga ma ci amoon am naa ko ci mën ga ma ko mënoon mën naa ko mais dal di rek xëy na benn euh, étape la boo xam ne dafa toll ci état bu ci vie wu soleil levant que ñu war ko def parce que man Sénégal gis nañ ñu ma joué ci facette bu ne joué naa ci facette bu ne man lépp lu jëm ci cinéma wala théâtre rek man je touche du bois alhamdulilah amul amuma dara lu ma ci jaaxal. wax na maanaam bu mu war ñëwaat dina ñëwaat ñëpp nga koy wax nag ñëpp a koy wax bon même Youssou sax mi nga xam ni sama kilifa la daf may wax ni man bugguma la ci facette bii nga nekk. ak yeneen ak yeneen kilifa yeneen mais comme dama ànd ak ay nit tamit di ko def dama leen di déglu rek. mais dina am moment boo xam ne aussi bu jotee il faut que je ma essayer tamit euh, euh, defaat ko même bu fekkee defuma ko ak ñoom aussi ma essayer def ko ak ak sama bopp parce que maa ngi envisager def ay ay one man show fii ci Sénégal et à travers le monde waaw.